jërëjëf mbokk yi amati mbégte ak kontante bu baax a baax a baax jàkkaarloog yéen du ñu koy defee saa su ne di am mbégte bu baax a baax a baax jàkkaarloog yéen seet si ndaanaan loo xamante ne rek saa su dañu koy faral di daral di waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ne rek actualité la ci réew mi waaye muy lépp loo xamante ne rek xew-xew la ci réew mi da ciy dugg ñu waxtaan ci ak moom mu joxe ci li nga xamante ne moo di xalaatam di aussi koo xamante ni sénégalais dañu koy déglu di ko bàyyi xel muy suma frère Pawlish Mbaye ma am ak moom jotaay tey kontaanaat bu baax a baax a baax toog ak yow ma bàyyi la nga nuyoog ma yàbbi si ngom bi tuuti s'il te plaît on envoie yàbbi si ngom ah. dégg ko ne je m'excuse ah. salaamaaleykum sénégalais yi salaamaaleykum réew mi monde entier ah ñi may seetaan maa ngi leen di béggee ñi ma seetaan aussi tamit maa ngi leen di béggee xam naa ne kenn ñëpp a may seetaan dèjà. réew mi la bëgg. di nuyu sénégalais yëpp ku nekk sa tur sa sant Zambie Guinée Équatoriale Libye Burkina Faso. ñëpp maa leen nuyu di nuyu Sénégal yëpp daal waaw di nuyu ñëpp daal. waaw di nuyu Sénégal yëpp tey ñu waat ak yow konk boobu ba léegi sénégalais ñu ngi la doon ñaanal ah, suñu borom tegaat la tey nga waat ak ñoom yan kàddu ngay waxaat sénégalais. waaw ah di nuyu am mbégte ah li tax am mbégte mooy xale laa damaa yàgg ci réew mi nag damaa ngi ci commencé yàgg. waaw waaw su ma su ma doon waykat mooy mi ngi mel ne ma ne sept ans de carrière. waaw. ñii reetaan wala. bu leen faale ba ngeen waxtaan mais mais ñi ay mbési ah. ok su ma doon waykat dinaa ne dinaa ne sept ans de carrière. sept ans de ci waxi dof kese. jërëjëf. kon man gàcce ngaa laa wax sama bopp su ma neexee feete samay sept ans ci waxi dof déjà ku ñëw fi nga may bàyyi ku génn nga bees yi yëkkati ko fi nga may bàyyi ana Samba Ka mi ngi Fuuta di jaay cere ak njoot ni Youssou Ndiaye mi ngi rax oto Ousseyn moom xam naa ne mi ngi def make c'est-à-dire ku ñëw fii nga may bàyyi ku ñëw fii nga may bàyyi parce que xam lu war a loolu intelligent propre set jantal mën a solu gën leen a xam dëkk bi ni muy doxee moo tax ko ñëw fi ngay bàyyi moo tax ko ma naan su ma doon waykat nga gis waykat bu yàgg ci aar bi sept ans de carrière su ma doon mbër muy sept de roi des arènes maa ngi téye roi des arènes téye ni sa bopp nekkul nag damay tiitaru mais suñu borom bu la mayee ndam da nga koy jëloo ndam gim la ci ci ceeg li tax man saa waxee dof dama xeewi suñu borom laay jiital muy allahu yàlla laay jiital saa waxi dof jiitalu ma kenn yàlla laay jiital yàlla ma sàmm fii ma ne en jën te nit ki mënoo yeewutale koo jën mm. tant jën xeewul du xeewi tant yàlla xeewul du xeewi kon xanaa man du xeewi ci àddina mm. allez vas-y. jërëjëf yal na la fi yàlla yàgg bàyyi ngay bégal sénégalais yi euh, yow say sorti sénégalais yi ñu bëri daf leen di bégal bu baax a baax a baax. <coughs> yaa toll noonu nit ku sénégalais bëgg nga ah, doomu réew mi nga. Euh, euh, Pawlish Sénégal yëpp di waaj li nga xamante ni mu di coupe du monde bi mu doon loo xamante ne képp kuy sénégalais yaa ngi ñaan suñu borom may ñu ndam li ñu indi ko fii ci Sénégal. damay dama koy tënk rek wax ci laa bëgg tënk mu nekk lu sibito lu gaaw réew boo ci nekkee dañuy xool borom ko tuuti li may wax nag waxuma waxi politique. waaw damay wax wax yi damay wax waxi football. Hmm. ak waxi borom réew. boo demee ci ab dëkk danaa la xool rabu dëkk bi li mu gën a bëgg nga defal ko ko. Hmm. te n'est-ce ko koy defal. si yow tey ba nga gëjee dégg wóoy sa famille ak sama famille kenn mës a dégg wóoy ci àddina. teer bi Europe nga doon gis teer yow te man tukki naa sax xam naa ne gisoo ko man gis naa teer yow ci télé yi gis teer ay ay ay ay Liss Korita nga doon gisoo teer ay Hercule ak Zena Lagarrière ak ak ñoom fa nga teer bu ñu demee ba tey ba suñu président borom suñu président indi fi teer kon ñun de kon dëkk bi dañ ko war a neexal. neexal bi sa neex mooy lan bu ma demee Qatar dinaa gis a dem de ak yow. non xaaral da na. kon dañoo war a neexal borom dëkk bi. billaay wallahi barke alxuraanu karim damay leen défi hmm. Sénégal yi laa bëgg a défi waxuma dama leen xas waxuma wax ñu ñaaw barke Mouhamad bu senegal amul jàmm. Hmm. waxuma laa coupe du monde. Hmm. coupe du koñ bi sax du fi ñëw. dañu indi coupe dana amoon jàmm. mais jàmm jooju ngi fi ba tey fu mu ne nii. bal tàkkul coow jibul dara xewul. xam nga coow dana koy fay. waaw coow dañ koy fay. soo gisee ma ni jàmm Macky Sall nañ ko kontaan moo yor suñuy coupe parce que président boo fi nekkee. Hmm. nga nekk président d'une coupe d'Afrique. Hmm. yàlla def nga qualifié coupe du monde dem coupe du monde. kon kooku danoo jig waram dëkk bi dañ ko war a neexal. neexal bi mooy Macky bu ko wax dara troisième mandat bi mu bëgg. Hmm. yal na ko yàlla may pour ñu jël coupe. noonu sa yoon nekk si man citoyen la. waaw ah, man citoyen la. man man. man porteur de voix la te en plus. man de voix la. man citoyen la. man citoyen la. bu nekkee citoyen lu ko day day wax xalaatam c'est-à-dire sama xalaat lay wax ci Macky te man su ma neexee tamit défendre Macky. dama koy mais mi tëral d'accord ne du am boo dee citoyen da ngay ñoom ci li ñu mi wax. réew mi xamuñu luñ tëral réew ñu xamuñu luñ tëral. Ah, waaye kaay wax dañoo taxaw ne troisième mandat du fi am. xam lu koy fal xeer a koy fayal xeer a koy ay xeer a koy fal xeer a koy xeeree fal président xeere koy fal ne fi defoon Abdoulaye Wade sànni ko ay xeer ba mu ba mu follee ko ñëpp di ko jooy kon billaay wallaay bu ñu sànnee ay Macky ba mu ba mu xewi jooy ñëpp dinañ tëdd suuf te nag président da lay jik te Macky mi ma gis bu rafet la yor waxuma waxi politique parce que politique intérêt parce que man man mi aw ma sa carte électeur kon xam nga waxi li ma gis ak li ma fekkee Macky de man de sama nguuru Macky neexal na ma xam ku nekk li daw sa yaram nguuru Macky man dig na ma de hmm. damay ragal Macky jógee fi ma xeewi te bu ma xeewee leneen mën na ma cee dal nguuru Macky dèjà jig na ma ku nekk la la jig ku fi indi du lu ndaw indi fi coupe d' afrique du lu ndaw yàlla def nga nga war a jëli coupe du monde te billaay wallahi Macky nii mu fasee kanam gi góoma coupe du monde ñëw Macky mel na xolam neexul xale yaa ngi koy saaga xale yaa ngi def lu leen neex ku nekk génn di wax ci ñaaw ñi ko faraloon di ko wax ci moom lu ñaaw di wax ci moom lu bon xolom neexul te nit bu xolom neexul ci këram dara du fi dugg te këram la billaay wallaay waxu ci coupe du monde waxul ci di daraay coupe du monde nañ neex la Macky pour coupe du monde ñëw bu fi coupe du monde bu Macky kontaan premier tour la ñuy toog billaay wallaay premier tour la ñuy toog te man billaay gëm li ma la xam ne dañ koy caaxaan dof moom bu gaa yi wax rek wax na barke amul sax premier tour lay toog barke alxuraanu kay amul Sadio Mané amul Ousmane Mané amul Pathé Mané amul Rokhaya Mané amul Daba Mané ak lu ñu maane maane maane maane bu seetal ba mu dëkk bi premier tour lay toog lu leer laa la coupe du monde du caaxaan coupe du monde du caaxaan nañu nañu nañu neexal Macky Sall Macky Sall sëriñ si nag ku ma Macky ki ki yor wàlla loolu dinañ ci ñëw eh, loolu euh, parce que ñoom ñëpp a ngi ñoom ñëpp a ngi génn di def ay seen i seen eh, interview ay dul kol lañ mënuñoo jël sax put mun mënuñoo jël pot kon am kër kenn amu ci kër ñoom ñii Macky koo ci yóbbu Qatar koo ci yóbbu Qatar ak ma suul sama ndey di leen daw sàcc xaalis naa naay dagg seen i loxo wala ñu xool jabaru jàmbur yi ñoom jabar lañ demee Qatar nekkul dara yóbbu leen Qatar xool jabaru jàmbur yi moo tax ñuy dem Qatar Macky koo ci yóbbu Qatar dina daw. Hmm? la ilaha illallah. ay moom Dubaay ak euh, bi. Dubaay <laughs> demuñu fenn ay durkat la ñoom wala xamoo ay durkat yow ñëpp a ngi génn ku ne naan dana def sarax bi ñi naan nañ ndellu ñi naan nañu def ay ay saraxe nag ñi naan nañ saraxe kurus ñi naan nañ saraxe bàmmeel ñi naan nañ saraxe néeg ñi naan barke alxuraanu kar yow muy yore wàll sportif yow muy yore wàll affaire coupe du monde sëriñ boo ci jëlee Dakar gi Dakar gi sëriñ bi yóbbu ko Qatar boo boobu chance boo ànd ak say jabar dina ko doxaat ci avion bi boo demee Qatar ñoom kon ñoom kër ak kenn amu ci kër amul sëriñ bu ci am kër ci ñoom ñëpp kenn amu ci kër kenn ñi apartement ñoom ñëpp appartement lañ luyee ñoom ñëpp xanaa ñoom bu ñuy ñaan xaay ba ñu ñaan coupe ñu ñaan am xaay tabax seen wut kër loolu point la bu am solo boo xamante ne dinañ ci ñëw gën cee yaatal ci ñi nga xamante ne ñoo di sëriñ si ak ñu koy woote ci internet bi euh, kàddu yooyu nga yëkkati ci coupe du monde bi ne dañoo war a seddal xolu borom dëkk bi loolooy secret coupe du monde bi. parce que xam nga xam nga xam nga xam nga nit réew da lay jig réew da kaa jig réew mi da kaa jig Macky réew mi dakaa jig te réew réew bu la réew bu la jigee ñun ay xale lañ mosu ñoo dégg wooy te billaay wallahi barki alxuraan ko doon sama maam mos sa gis coupe d'Afrique sama papa mos sa gis ko yow sa gis ko ak ak sa maam yaa ko mën léegi léegi bu daal dimbalee Macky Macky jig bu ñu jël coupe d'Afrique mënu ñoo neexal xol ba ñu jël coupe du monde bu jëlee coupe du monde bu neexee daa ko mu dem mais dina ko coupe du monde di di ko saaga naan ko lii te Macky dafa Macky ni ngeen ko gisee dafa Macky billaay Macky sonn na trop mi ngi def lu mën ci àdduna Macky gi def lu pour seddal xolu Sénégal seddal xolu Sénégal yi moo yombut jamono ji jaar naa fi maa ngi ci oto dégg la nga ne Macky ngay saraxeel soow ndax daa tàng waa parce que li tax ma saraxeel ko soow du saraxeel lenn lu ne maa ngi koy def ci moom parce que xam ne pa dama ko yëram ah yor Sénégal moom metti hmm. yorub réew moom metti surtout nga yoru Sénégal nga xam ne ñi am na ñu liggéey am na ñu liggéeyul am na xam ne duñu liggéey toog muy dox fu mu am kon am nga yërmande boobu ci président ba koy génnal sarax. waaw mais parce que c'est normal parce que man Macky man bu Macky su wàccee damay xeewi man te ki fi nekkaat dina ma jàpp. Hmm. man leen na ma ni kii fi nekkaat ba lay njëkk a jàpp ci àddinaam parce que ñoom ki fi nekk bëggul wax yi dof ay fere julli la bëgg ay sévère. amul yooyu la naa ki fi nekk laa wax ay julli la bëgg nga sévère yooyu la bëgg te fii du fii du dëkk sévère fii dëkku kaf la fii dëkku kaw fii dëkku noos la barke alxuraanu karim billaay wallaay sénégalais yi sénégalais yeewu leen sénégalais yi yeewu leen yeewu bàyyi le boo leen singali rek bëgg mu dem boo leen singali bëgg mu dem. ki fi nekk li mu bëgg. ay sévère Eh, dem fii solo kii jëm ji ay ay affaire yooyu amul jàng ci amul affaire yooyu la bëgg te nag mag yi suñ dëkk neex na ñi ngi dem soirée ñi ngi baali ñi ngi sango piscine mm-hmm. ñu yaa ngi sol deux pièces ñi ngi def lu ne ñi lu ne ñi ngi koy def te mag yi laay mag yi am yërmande mm-hmm. te am na doom yoo am na doomu mag yoo xam ne mm-hmm. ñiy saaga mag yi yëpp ba ay doom buñu poñe kii ne ni amul gi ñoo demu toll comme ci poñe barki bu dee na sawal nga saw man damaa bëgg nit ki boo ko faralee faral ko ba day tukki. bëgguma suba nga wax ci lii nga wax ci lii lu ñaaw. te njiitum réew du caaxaan. Macky Sall mi ngi liggéey. Macky Sall liggéey ko tax a jug mi ngi liggéey nit bi liggéey dañu ko bàyyi mu eggal liggéeyam Macky lu ne mu ngi koy def pour pour satisfaire rek mais Sénégalais ñoo neexul satisfaire am na góor yoo xam ne tëdd na léegi seen biir jot sànni xeer jot ñu saa ñu naan parce que liggéeyuñu ceeb bi amatul boo liggéeyul nooy xamee ceeb bu yokkul ak bu yokkul. Macky dafa moom dafa moom taw taw ñaan dëkk baa ngi inondé Macky ak Macky daa moom taw ñu naan ceeb bi amul am na nit ñoo xam ne ay biiru ko am na nit ñoo xam ne suural leen yombul ay biiru ko jigéen leen yor tey bu Macky wàññi woon ceeb bi ba ba wàññi ceeb suural leen moo amul suñu suñu borom moo def loolu am na nit ñoo xam ne ay biiru ko góor gu jigéen lañ def seen biir yi suural leen du yomb am na ñoo xam ne dañoo tiit bu nga leen saako ceeb ñu lekk ko benn jour du ñu doyal parce que seen suñu moo bindee nit ñooñu dafa am nitu kokkoli ginaaru kokkoli xaru kokkoli muusu kokkoli daa nit ñoo xam ne ay nitu kokkoli suural leen du yomb kon Macky ñëpp mën na leen suural nit ñi bàyyi leen Macky liggéey boole ko bàyyil barke alxuraanu karim duñu génn sax premier tour barke alxuraanu karim te man citoyen laa su ma soyoon Sénégal jël coupe du monde jël coupe du koñ jël coupe lépp parce que bu ko jëlee suñu fierté la mais nañu neexal Macky Sall Macky Sall jàpp ci coupe du monde bi dëkk bala moo naat ñëpp reetaan bokk ko fa reetaan ñu xam ne dëkk bi dëkk coupe la ren xanaa xamoo ren bi suñu coupe la mais tant que ñi nga wax Macky Sall di ñaaw ñi génn di saaga di def lu ñaaw non dëkk fu nekk ni daal sarax bi du ay ndel ak yeneen ak yeneen le président reetaan du ay ndel du ay nag do ay gaynde du ay segg nam fexeel ne Macky Sall reetaan fi ginnaaw suba avant de fol fexeel ne Macky Sall reetaan ku mën a reetaan loo Macky Sall ne fexeel Macky Macky suuri rek Macky bu suurulee barki yonent bi day jël coupe du monde. Hmm? barki alxuraanu karim dana jël coupe du monde. Hmm. xoola bu suurulee. waaw barki Serigne Bamba euh, dana jël coupe du monde. est-ce que bu bu bu. xoolal bu surulee barke Seydou Naam xam dañuy jël coupe karim. kon sarax bi rek sourire boo la ko mënut a jaar ngeen jaar sunu yaay Marème Faye Sall ne fexe leen Marème Faye Sall fexeel ba Macky reetaan Macky bu suñee si nag bu demee fexeel Macky def ne nag Macky bu demee noonu ak ma suul sama ndey dina jëkku di moon rek nii rek reetaanam moom mi reetaan bu ko defee ak ma suul sama ndey dina jëkku di moon Macky gën naa reetaan de seetlu Macky gën naa reetaan de sarax bi du ay ay nake ki ay ndeloo ki ay gay sëriñ bu ne saraxa indi coupe bi dañuy duul indi ñu den Macky na suuxi suur ne mooy ma suuril bi Hmm. bu ko reetaanee waxuma laa coupe du monde ku yëpp ay ñëw. na Macky bu ko reetaanee waxuma laa coupe du monde ku yëpp la ñuy jël ne Macky reetaan képp ku jege ne Macky Macky sourire bu lu ne Macky koy defal Macky neex sax mi koy commandé yàlla ma Sénégal yi dund commandé leen moo yombut comme am na nit ñoo xam ne ay Iran lañ te xeex lañ gën a bëgg seen àddina ko seen papa nekkul président si day nekkul président noonu daal ku yëg na wàcc daal la lan lañ bëgg fexe leen sénégalais yi bu dee zori yéen ñi xam Macky Sall wala zori fexe leen Macky mu reetaan ngeen dee vidéo Macky reetaan reetaan na moom mi reetaan bu ko reetaanee barki alxuraan dina jël coupe du monde bu ko reetaan premier tour lay tug reetaan ko reetaanee lépp bii rek bu ko defee coupe du monde ñëw. ban ci. Hmm, hmm, hmm, bu ko defee coupe du yëpp ay ñëw barki alxuraanu karim fexe leen Macky reetaan reetaan bi s'il te plaît képp ku gis Macky wala leen Macky reetaan reetaan ak ko génn leen ngeen def vidéo bu ko Macky reetaan ne barki alxuraanu karim. billaay mën naa doon sama loxo. bu énervé bu barki yo énervé wu leen bu koy Sénégal bu Macky bu dee du jël coupe du coupe du monde. lan lay réew bi ba mu dese reetaan bi ba mu collo ba mu nekkee président la ko reetaan. nan la boobu gëj na ko reetaan ban ban ne Macky fal nañ la la reetaan boobu bu ko reetaanee léppay am gëj na koo reetaan fexe leen Macky reetaan boobu avant ñoom football na ko Macky reetaan. macha allah te Macky nitu wërsëg la Macky ku baax la. Hmm. képp ku ñu Macky suñu yaay Marème Faye Sall yow yaa mën a reetaan loo Macky ak yow it yaay sa xol dafa rafet ngir dem Rasulullaay yaa ngi dimbalaate yaa ngi def yërmande ci doomu aadama hmm. yaa ngi dimbal doomu yaay Marème Faye Sall moo tax président bu am jawru sénégalais c'est rare hmm. fi ñu ko am jawru sénégalais Ousmane Tanor Dieng amul woon sa sénégalais kii Karim Wade amu woon jabar sénégalais wala Karim Wade du Macky du président Ablaye Wade amu woon jabar sénégalais. kii Nusa kii Nusa kii kii déedéet kii xaaral Djily Mbaye amu du kii damaa juum exemple président yi fi ay Senghor Ousmane Tanor Dieng ah ay Yirim Sow xam nga président yi jot a jaar ma xaw ma ma ñeenti président yi jot a jaar Abdou Diouf Macky Sall sama Diouf xaw ma kenn dama sonn waay non non non sérieusement fii nga toog léegi ne citoyen nga ci réew mi nga dëkk di nga xam nag ñeenti président yi jaar Sénégal ñu yeggal suñu waxtaan juddoogu ma woon man xay laa woon man dama précoce quatre-vingt-dix-sept laa xaw ma leen Macky na reetaan reetaan boobu rek bu ko reetaane coupe du monde ñëw barki alxuraanu karim hmm. ay nag génnul coupe du monde hmm. ay gaynde génn coupe du monde dara génn coupe du monde na reetaan reetaanam boobu rek coupe du monde ñëw kese kese yaay Marème Faye Sall sa xol dafa rafet te kenn mënut a reetaan la Macky lu reetaan boobu bu ko reetaan na ko reetaan ba Sénégal yëpp ko ñëpp essayé bu a atte doomu aadama la xiyam maa <laughs> bu ko defee coupe du monde day ñëw far fos jour yi fexe leen def challenge Macky Sall reetaan boobu Macky na ñëpp génn leen na Macky benn reetaan boobu ngay reetaan reetaan ko coupe bi day ñëw barke alxuraan koy bu coupe bu ñëwul du jël ko kon yàlla moo jël troisième mandat billaay bu ko reeraane ko ko du ñëw barki alxuraanu karim li wax damaa leen naññi fi a financé si mystique bëgg yëpp nañ ko financé président ni dee jigéen la mu faram wut ci ay gelam ak faram dem bu dee sëriñ ji xale jigéen góor ñi sëriñ si mënuñoo indi sax kon ñu am kër wala ñu am xaalis amuñu si dara ñoom ñoom ñëpp luwee jërëjëf macha allah mbokk yi mi kàddu yu am solo yoo xamante ne nag euh, seqoon nañ ko ak suñu frère Pawlish Mbaye euh, ni mu ko waxee rek citoyen la ci dëkk bi la dëkk di doomu réew mi am kàddu aussi ci lépp loo xamante ne rek day am ci réew mi mu ci yëkkati kàddoom. garab gi ñëw ci réew mi di cent pour cent naturel ñu defaree ko meññeet ak i reen jaarale ko ci laboratoire muy cent pour cent naturel amul chimique amul effet secondaire mooy àndalaa buri dafay saafara yaram li gën a ci li muy def mooy góor goo xam ne day am ci taxawal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 96 96. àndala buri mooy saafara sa yaram.